Assalamu alaikum uh, Mboki Sénégal assalamu uh, mbok uh, yi nek ci diaspora bi ñu dellu ci ci les vidéos de Barthélémy Diaz euh di baalu balu di leen di baal di ñaan yalla nañu yàlla ñuy féké ay déwon yu rafet euh décision pour euh, président Macky Sall euh, jot a moi euh, mooy renoncer ci troisième candidature Lolo euh, mooy respecter constitution bi mooy ben. bu ci tegu bi tamit respecter cadre bu mu joxe bu mu Sénégal bu muy proposer askan bi ñu voter ko oui ci référendum bi ma bëggoon dellu siwaat Ah, pour waxat ke bañuy dem ci dialogue bi euh ah, te ci insister parce que tay dafa am ñu bëgg lëndëmal xel yi bëgg yak xol yi ak yak xalaat yi suma baat ci kaw sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar sénégal dañ koy pencoo waxtaane ko ngir ëllëkëm euh ah, parce que lu ñu gëm ñun mooy ci jàmm la lépp xaj motax mané dina ne dinaa dellu siwaat ci vidéo yi ñëk interpeller président Macky Sall ginnaaw bañ ko euh wax ko ko dialogue bi mën nañ continuer di waxtaan parce que amna ay points nam point yu ci ëppoon solo yalla def na ci sutura wante amna ay yenen points yu ngeen xamné ni wax deug yalla euh mën nañ continuer di tok di ko waxtaanee politique may biiralaat wax ji nena politique mën na bañ une science exacte wante xel moy politique may sakku ci président Macky Sall ci yar ak ci jàmm ak salaam ci dëkkandoor ak mbok na bàyyi xel ci luñuy sakku ci mom moy élection inclusive ñep mën bok ndax xel yi mën dal te lu tax may insister ci lolu parce que daanaka dafa am ñuy fural wante askanu Sénégal yan lay waxal Sénégal suma ma baat ci kaw te ñëpp ak may dégg amagul benn acteur politique fii tey Sénégal bu fi am 30 premier tour élection présidentielle moo tax may sàkku ci président Macky Sall euh, na def kenn kàttanam ba élection bi mën a inclusive bien sûr pour ñuy respecter euh, les conditions pour mën a bokk ci élection yi parce que euh, am na élimination loolu moom la ñaawlu moy sélection buñu bëgg organiser à la à la place de élection wante nak amna ñu ngeen xamné ni euh, duñu mëna bokk parce que tamit dañu bokk ci république te république dafa am loi ak ay texte wante ñu ngi insister ci li di l'inclusion euh, de tous ci élection yi parce que lu may wax ni lu tax mu am solo dernière élection buñu ñu amoon Sénégal moy élection législative nous ànd ci ak njabootu président Abdoulaye Wade ci cadre intercoalition Yewi Wallu donc mbooloo boobu bu jógee woon bàyyeeku ci ñaari coalition yi créer intercoalition moo une élection yi ñu am à peine 51%. Quand un pour cent kon tey waa PDS su ñu demee ba wootee ñoom dañuy dem élection am candidat ñun waa taxawu Sénégal avec la gauche euh, ñu ne tamit dañuy am candidat mu am ñeneen tamit.

kon nak nañu respecter Sénégalais yi parce que gisuma tay nak la njabootu Ablaye Wade mëna am sen candidat njabootu Khalifa Sall am sen candidat ñeneen am sen candidat ñett feug deunam ne tay day gagner premier tour motax may may wat ci président Macky Sall euh, na may ñëpp aafiya ñëpp mëna bokk ci élection yi ndax xel euh mëna dal xoli mëna feex moy suma gëm-gëm moy suma gis-gis moy suma xalat benen bi nak mbokk yi mais il lance un appel à tous nos amis de la gauche Tes candidature bu ñuy à travers la modeste personne de Khalifa Ababakar Sall candidature Bobo, c'est une candidature de principe candidature de valeur candidature d'avenir euh, Nam degle la nagu ñuy naagu di fàtte ma di fateli que lu ñu parti socialiste lu tax ñu parti socialiste tëj ci kasso bi presque ñetti at mooy parce que dañu yëkkati woon suñu loxo ne dañu am ambition bëgg a jiite Sénégal bëgg a liggéeyal Sénégal bëgg tabax ëllëgu Sénégal loolu moo waraloon ñu tëj ñu ci kaso bi dàq ñu parti socialiste fokk ti suñu ay mandat moo tax socialiste yi ñu ngeen di tàllal suñu loxo yi te incha allah am yaakaar ci ay fan yu néew dinañ mën a toog waxtaan waxtaan waxtaanu. Sénégal ak waxtanu ëllëku Sénégal parce que ku du Sénégal di nga tudd tamit euh, au Sénégal té ku tudd te ku Sénégal di nga tudd lu parti socialiste jot liggéey Sénégal euh, mbokk yi même moi wax ak ndaw ñi euh, ndaw ñi la jeunesse du Sénégal y'en y'a leen di ëllëku Sénégal waxu dialogue bi.

te xam ngeen fu may waxee ay ndaw ngeen yàlla may na leen xel macha allah te nu ngeen di ko waxee yéen xale yi na ngeen yéen da ngeen dégg daaj ma ne Sénégal du ma moomeelu kenn ñun lu ñu mën ñu ngi koy dox lu ñu mën ñu ngi koy wax lu ñu mën ñu ngi koy jëf mais dañ koy def ci kaw lu ñu yoon may ci sañ-sañ dama ne képp kuy wut nguur Sénégal Ben, yon kese la la yoon may nga am sañ-sañ di wuti ci yon boobu moy yoonu election amul benen yon. amul benen yon. constitution bi man ngeen ko gestu ngeen xol ko côté bu nek ben yon kese la len constitution may pour meuna conquérir le pouvoir moy ngeen jaarale ko ci election élection nañu ñu seen xel ñaawon ñu jàppoon ni que président Macky Sall namul organiser élection wante luñu mëna japp tay moy président Macky Sall nangu respecter cadeau moy ben bu ci tegu tamit ma len di rappeler au passage que mom kessé le yoon may sañ-sañ mu mëna a signer décret présidentiel pour convoquer corps électoral man l'en may yéen askan bi ngeen tan kan moy don sen njiit kon nak bu len may kenn mu len di dugal ci guuta ba guuta boobu mëna a excuse pour que

Mohammed, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'injustice a toujours fait partie du monde des hommes. Nous la àdduna tëddee kon nag képp kuy jullit julit mooy kuy julli xam catholique nga qui xam musulman nga nga da ngay julli da ngay parce que lepp lu doomu adama di dund ci kaw muy des na ci destin que nous avons dina ko motax ñun duñu gëm moy lepp lu de la vie Mo xam banex mo xam tiis mo xam metit su lo ko yalla tegee mo xam dang kay gisé melni la nang ko dundu, dundu ci and ci ak diiné and ci ak gëm yalla ci ak wolu yalla loolu moy jullit ku fi wootee lenen ma ngi ci cadeau yi dama Sénégal du momelu ken. ñëpp a ko bokk ku fi bëgg a woote nag mbiru naaféq na ko na ko xale yi dëggee noonu na ko askan bi gisee noonu wante dama ne taal Sénégal yàq Sénégal bëgg dugal Sénégal ci guuta ndax sa bëgg-bëgg kooku wax dëgg yàlla duñ ci mën a ànd ak ñooñu duñ leen ci mën a jàppale lu ñu gëm tey may profité waat ci occasion bi pour tàllal suma loxo yi à toute la classe politique Yalla kese mo xam kan moy utu président Macky Sall au palais de la République mais particulièrement à la coalition ñu jappé sen bopp ñom ñoy représenter opposition nañu xoolaat sen taxaway. xoolaat fan la den sénégalais yi tek ak ban yaakaar la sénégalais yi am ci ñom. amul fenn ci charte coalition opposition fu ñu bind ni que nit Mindef, Sénégal injustice Nous bu ñuy ci Mindefi, yenn mindeef yi ñun ñep gis nañ ko té bala ñu koy gis ñun coalition Sénégal dund ko aussi bien ci humiliation que ci manipulation que ci une fois de plus injustice notoire mais lu am solo tey mooy yàlla tey ci mbaaxam atte na tey incha allah ci ay fan yu néew am nañ yaakaar dinañ bokk ci élection yi bokk ci élection yi nag lu ñu tax a jóg mooy pas falu falu pour falu loolu moom amul sens amul solo lu am solo moy luñu ñu doon xeex ci coalition diko ko wax askan wi diko doxé ak askan wi ba yalla may ñu ci ndam tay nañu askan wi gis ñu doon benn say di xeexal askan bi di waxal askan bi ngir ëllëg ñu mën am yaakaar liggéeyal askan bi euh, une fois de plus à la lucidité à la sérénité au calme lenn fi am solo l'essentiel te l'essentiel mooy Sénégal loolu laa bëggoon wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag yàlla yàlla continuer di kattanal Sénégal di fi yokk sutura biir euh, biir euh, biir réew mi te di may tamit askanu Sénégal aafiya ndax Sénégal mën a jëm kanam ñu ngi leen di gërëm mbokk yi leen di sant te di leen di ñaanal jërë ngeen jëf mbokk yi.